maanaam ay cas yu garaaw a garaaw maanaam deret joo xam ne dafay way loole nag daanee tax agence américaine des médicaments ubbi cab enquête ma ngi ci réew mi quotidien journal a garaaw ak a doy waar ci suuf ndax Sénégal wër ta noone yéen a kaay gii las wax soxal wàllum élection locale yi nee na am na benn réunion boo xam ne altine bii ñu génn majorité beeg opposition beeg société civile gi daan nañu koy def fa ngir nag wut ak déggoo ci li nga xam ne mooy élection locale yi kañ la ñu koy amal waaye nag réunion boobee maanaam amul benn déggoo boo xam ne daan na say am ndax ñi nga xam ne ñoo majorité bi ñoom daal nee nañu élection yi 2022 la ñu ko fas yéene amala te 2022 boobee nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jigee société civile bi ñoom nee nañu ay élection locale nan la ñu ko mën a amalee ci atum 2022 ba pare ci atum 2022 boobee tamit ñu amal fa li nga xam ne mooy ay élection législative yéen kaay gi de la di ñu xibaar tamit bi ak société civile bi ñoom nee lenn rek mooy tax ñu mën nangu élection yi caatum 2022 ñu jox ay garantie wax lu leer ñi na 2022 buñ sa defee élection locale ca at moomee tamit sa def li nga xam ne mooy élection législative yi maanaam du ñu dàq élection législative yi nga xam ne ci 2022 boobu la ñu ko bëgg a amal ba tey journal bi nee na en tout li am de sàll mooy ñi nga xam ne ñooy majorité bi ñoom nag nee na yi daal nañu ko amal ci 2022 yéen a kaay ñaari a a li nga xam ne moo bloqué élection locale yi maanaam li nga xam ne moo tax mu tagga témbe lenn weesuwu ko lu nag ay calcul politique yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee nañu président Macky Sall waa Union européenne ñoo ko woolo ngir nag mu andi ay leeraange ay explication ci xaalis bi nga xam ne joxoon nañu ko ko ngir nag mu daal di li nga xam ne moo jëm ci wàllum émigration clandestine syndicat autonome de l'enseignement supérieur nee ma SAES jamono ji nag am na ñetti fan yoo xam ne ñetti fan yi grève la la nga xam ne nag moo ko waral ñoom jàngalekat yi nee nañu nag la nga xam ne ay digale woon maanaam ay accord ñu signé woon ko ak gouvernement bu Sénégal ba léegi amul lenn loo xam ne daan nañu ko si respecté syndicat boobe nag nee nañu ñetti fan yi daal maanaam avertissement la yéen a kaay gi nee na étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université Alioune Diop ba sa Bambey ñoom amal nañu ab boo xam ne grève bu tëdd ak la waral bokk na si jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund te ñoom nee nañu wax nañu ba sonn état bu Sénégal nangu nanguwu leen a faale wu ñu leen a fulaalu ñu leen a yéen a kaay gi di réew mi ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo député bu tekki moom nag ji li nga xam ne moom lay sàkko maanaam mooy deera délégation l'entrepreneuriat rapide xaalis ba nga xam ne dugal nañ ko fa ñu daal koy càmbar maanaam ñu daal koy audité ndax lu toll ci cent milliards yoo xamante ni waa deer nee nañu séddale nañu ko li nga xam ne mooy liste bénéficiaires loole nag dañoo soxla def nañ ko sax boobale xaalis yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu juge Mamadou Seck mi nga xam ne moom la ñu njëkkoon a jox dossier bi Ousmane Sonko ba ñu koy doog di jox dossier bi ndeke dañu ko yónnee woon ay message ay menace de mort moom ak njabootam yéen kaay gi ne na am na ñaari xal yu jigéen yoo xam ne firi la ñuy liggéeyee seeni numéro téléphone ñoo envoyé message yi nga xam ne dañoo menacé de mort juge Mamadou sekk ak njabootam journal bi nee na ñaari xale yu jigéen yooyee teg nañu leen loxo kenn ki yóbbu nañ ko sa kasu ba kenn ki daan nañu koy may ab liberté provisoire yéen kaay gi di enquête xëy xibaar naan ñu Abdou Mbengue mi nga xam ne moo jiite woon section de recherche maanaam jëlee nañ fa Abdou Mbengue ana lan moo ko waral journal bii di enquête na xamuma ko yéen a kaay gi de Les na en tout cas mi nga xam ne moo nekkoon section de recherche jëlee nañu ko fa ku ñuy wax capitaine Aliou Ndiaye bi nekkoon conk moo ko wuutu yéen a kaay di réew ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu directeur général bu Sénélec Pape Demba Bitèye moom nag daan nay wax a métti lool ci ñenn ñi ndax bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara day taal yi te koor la goo xam ne ñu bëri ci askan bi dañoo am ay jafe-jafe ba maara day taal yi journal bi nee na koor gi nar naa ndax bëri na ay entreprise yoo xam ne dañoo mujjee tëj la ko waral bokk na si jafe-jafe yoo xam ne dund nañ ko ba mënatuñ koo dund yéenekaay gi nee na ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy some ñi ñàkk seen liggéey saa sunu xëyee muy gën di bëri ci réew mi yéenekaay gi di réew mi quotidien génn ñu réew mi yóbbu ñu réew Burkina Faso nee na ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum yoon ñoom nee nañu danañu àtte ki nga xam ne mooy Blaise Compaoré woree ci lu jëm ci assassinat Thomas Sankara yéenekaay gi di L'As ñu xëy fekk fa Matar Ba ministre bi nga xam ne moom la dénk wàllum tàggat yaram mu mer ba bi nga xam ne maanaam dañu ko yàq saax-saaxe damm li nga xam ne mooy CSG moom Matar Ba nee na nag mbir mi duñu ko bàyyi mu sedd benn yoon yéenekaay gi di Stades xëy duñu xibaar nañu Paris Saint-Germain éliminé na ñi nga xam ne ñooy Bayern yéenekaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Jules Balde mago Ama Balde muy teg pression ci ki nga xam ne mooy promoteur bi di Luc ne moom ñu sàkko nee